moo tax mu ne inal insaana naka xeetu doomu aadama xuliqa bindeef na leen aloo an mbir mu ñuy nekk di saaliga kon ida massahoo ndeem jot na ko asaru ñàkk asaru feebar jaswa an muy jàqaa kon wa ida massahu bu ko jotee alxayru wér alxayru xalal man noo an muy tereexa kon ilal na lu dul way gëm ñi ñoo ñaay ñan mu ne alasi mooy ña nga xam ne daa imuna way dappetu lañ ala salaatim seen julli ñoom rek la mu ne wala si naag ña nga xam ne ñoom de fii amwaalim ak yi nekk la seen xalal ya xaqun xaq maalumun ba de buñ xam li saa ili ñeel képp kuy laaj si wala mahroome kiñ xeñ ba mënta laaj loolu rek la mu ne wala si naag ña nga xam ne yu saddiquna danañu dëggal bi yawmi diini ci bisa fay ba wala si naag ña nga xam ne hum ñoom musfiquna way jàq lañ min azaabi rabbim seen bugalam borom inna azaba rabbim naka mbugalam seen borom xayra mamunin xayru mamum duhul luñ hóolu ca ñoom wala si naag ña nga xam ne hum ñoom xaafisuuna way wattu lañ li furuujim ñeel seen pëy ya illaa ala aswaaji lu seen soxna aw maa malaka wa loo xam ne moom na ko ay maanum seen nday joor fa innahum naka ñoom xayru malumin duhu ñu ñu yedd ca dikkee ñooña waaye fa ma ni bu taxaa képp koo xam ne sàkku na waraa zalika li nekk ca gannaaw soxna zalika ñooña maanaam waraa zalika gannaaw loola fu laa ko yooye gaay hum ñoom alaaduna ñooma di way jalgati li leen xaraam li leen bàyyi fi li leen dagan wala si na ña nga xam ne hum ñoom raauna way sàmm lañ li amaanaatihim seen kóllitey cër yi wa ahdihim ak seen kóllitey xol yi wala si naag ña nga xam ne na way jooxe lañ bi shahadatihim seen i seede wala si naag ña nga xam ne yu xaafisuun dañuy dappetoo wattu ala salaatihim seen julliya ulaayka yooye gaay na ñu ñuy teral lañ fii janaati ñu nekk ci ay aljaana yu neex a neex yàlla nañu yàlla boole ci xaaj bi yàlla nee nit maako ko bind ci ñàkk jom su wéree boole kook am di balballu su ñàkkee mbaamu feebar balam booba di bonde mu ji peer mu tëdd ne nem dootoo yëgati dara ku ci ñàkk mbaa mu feebar boo ko gisee yërëm ko waaye nag ku ci yor yenn yi nag commencé ngay tiitaru mu ne su amee alal mbaa wér commencé na nay du ca du ko def ci farata ci li ma bëggul rek la koy def maa la dooleel ba pare ngay dooleewoo sama doole di ma moy mu ne nag su ma ko tegee ak ñàkk mbaa feebar ma ngay ma ngay jàq tiit mu ne xaal bii ña ca génn rek mooy ña gëm yàlla ña gëm yàlla bu ñu amee wërsëg sant yàlla def ko ci la yàlla bëgg suñu ñàkkee ñi muñ delloo seen bopp ci yàlla kooku mooy melaw julit moo tax yonent an tabas yàgg mu ne xajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu xayrun billaahi yéem naa mbiram julit mbiram julit moo yéem ñu ne ko lu tax mooy mu ne koo xam ne bu ko yàlla xéewalee mu sant bu ñàkkee muñ waaye nag ko dul ko gëmul yàlla mbaa sa gëm yàlla ga feesul sa xol soo ñàkkee ku ne da nga ko ko jiiñ man ngaa tàngooree ca biti sax amoo dépense ñëw jaay ko sa soxna saaga ko mbaa nga dóor ko mbaa nga wan ko njaboot gi loolu lépp yaa ngi toje ay kaas mer toj télévision bi te da nga ko jëndaat kaas bi toj kaas yi nga doon toj léegi te ñu defal la ci ndogo nga commencé naan kafe loo ciy toj kon yooyu yëpp manqué rek moo koy waral kon loolu lépp manqué waaye nag gëm yàlla dafa jafe gëm yàlla piir nga fexe ba rempli juróom juróom benn yi fonk julli doo faat waxtu doo ca yem sax da ngay naafile julli gu jot nga gàttandu ko gunge ko tertoo ko ñeenti rakka buy dem nga gunge ko ca baar ya ca tàkkusaan ya timis moom da koy gunge juróom benn rakka rek waaye bu ko gàttandu loolu la Maalik gëm gexe bu ñëwee nga gàttandu ko buy ñibbi nga gunge ko gana guddi la gana guddi da ko war a gunge ba sori moo waral naafile guddi yi waaye gan gi ñëw rek nga teral ko rek dem tëri nelaw sa gan gi mbaa dana mën a génn fi mu dëkkoon da ko war a gunge ba sori loolu moo indi yaa yaa ayyuhal muzammilu qumi layla illa qalilan su ko defee tamit nag fajar ñëw gan ak suba teel la nga gunge ko daral ko ci ñaari rakkaa su ko defee tamit julli julli ko moom joxe ko teral ko soo demee ba nga xam ne nag jant bi yëkkatiku na nag nga julli juróom-ñetti rakkaa fay nange mbaa juróom-benn buy fukk ak ñaar gën a baax di juróom-benn sëlmal yi wuree ci nekk. lii lépp lañ bëgg kooka mooy walladina ala salaatihim daa imuun foo toll tamit boo bàyyee koo ca jàkka ja sa xelang ca jàkka ja am na koo xam ne julleem du sëlmal moom bu bàyyee ko ca jàkka ja xelam ma ngay dajaat tusubaar tàkkusaan xelam ma ngay dajaat heure bu nekk ma ngay bàggante ku mel noonu la yonent bi ne bu ngeen gisee nit xelam ma xaju ci jàkka mu baaxoo dem jàkka seedal leen ko gëm yàlla ida raaytum rajulan yaqtaadul masjid fashhadu lahu bil iman kon ku mel noonu moo jara seede mu ne waaye tamit ànd ak loolu seen alal ya dañ koy bokk ak ñu ñàkk ñi ña mën a laaj ak ña mënta laaj ñëpp bu ñu amee jox leen am na koo xam ne bu doon lekk suuf du la laaj dara yaay xam ne xëyoon na ko rek nga jox ko dëggal nañ bis penc duñ ko weddi waaye tamit ñoo ñoo xam ne mbugalam yàlla ma lu ñuy baax baax di def li yàlla santaane lépp ñi ngiy jàqane mënuñ caa mucc buy kenn dem safara day nekk ñoom ndax ab julli dafay war a dund ci diggante baynal xaw fi war a jaa yaakaar yaakaar ba buy kenn dem aljaana nga ne man lay doon ragal a ragal ba buy kenn dem safara man lay doon soo demee ba toll ki sukuraat nag sànnil ragal fële dese yaakaar ne tey lu may bon bon tay ma gën a ji koo xamee ni ku baax ku tedd ku tuddee boppam ne innahu huwal baru rahim su ko defee kon nag bay bu ragal waaye ñu gëm yàlla ngi dañuy wattu seen pëye du ñu njaaloo seen soxna rek la ñuy ànd mu ne nag képp ku sàkku maanaam fa ma ni bu taka taxaa wara zalika fa ulaayikumul haaduun wara zalika nag lu bëri la wara zalika nekkaale ci la bokk ku jël sab nekkaale sàkk sàkku nga maanaam li la li la li la xaraam bàyyi fi li la dagan koo xamee da ngay toog ñàkk jom naan juróomi at a ngi nii maa ngi moo génn foo ko teg génn génn mooy waxi lan léeg-léeg nga ne dama ko yaakaaroon génn naa moom juróom benn at korite gu ne ma xotti moom dafa maa wor keneen keneen moo ko takk ma ne ko ku pareegut kenn mënu koo xaar yooyu yëpp ñàkk jom rek te tamit génn nag nit ki bu ngeen xasee am rapport nga takk ko ca su ngeen sëyee mooy yàlla la sëy nekku fa boo amee moom rapport dañ ko war a laablu ndax jëleewul ca dara te loolu dafa bëri ci ji jamono waaye tamit wara azalika liwaat ca la bokk ñaari góor ñuy say di fa ji jikko ji gën a bon wara azalika si xaq ñaari jigéen ñuy ànd ca la bokk wara azalika nga nekk góor di fooye sa bopp ba sa mën yu génn ca la bokk nga nekk jigéen di fooye sa bopp ba sa mën yu génn yëpp fa ma di bu taxaa wara azalika ca la bokk kon wara azalika lu sakkan la ji góor daal dañ ko dénk ndox mu foor moo xam ne duñ ko jaay duñ ko leble duñ ko maye yàlla ne nag bu ko yàq bu ko sotti fu ma la ko sotti loo wut mooy sa soxna rek waaye bis boo defee lu dul loola yaa ngay yàq ndoxam yàlla mi ni koy mala yi yàqee ku leen neex fu leen neex kon loolu baaxut ndax njaalukat boo gis ji koy mala la yore moo tax lislaam nañ ko def jëfi mala mala bu defee lu garaawut dañ koy dóor moo tax moo indi téeméeri yar su defee lu garaaw ba mu garaaw a garaaw nañ ko rey mu indi maanaam euh, jam la ay xeer ba nga dee rek mu jeex ku jëf-jëfi mala ñu jëfee la jëfi mala njaalookat yëpp jikkooy mala lañ waree moo tax yàlla ne dañ leen xatte ci ñoom jëfi mala rek dóor téeméeri yar bu garaawee ba garaaw rek ñu sànni leen i xeer bañ dee mu jeex léegi nag aaya ji fa ma lazina kafaroo qibalaka yonentu bee toog rek xéeféeri def ay kuréeli kuréeli kuréel wër ko di ko buqi seen bët yi rek fekk nag ñoom dañoo xam luñ xemeem dañoo bëggoon daal kenn ku nekk ki ñoom dugg aljana ne aljana daal ni ñu yàlla tere leen nii waaye bu àllaaxira nii rek lay demee ku ñu dëkk aljana da ñoo faa gën su ko defee nag ñi commencé jël seen yooye di xool yonent bi moom lay alquran di wax si nii moo tax mu ne fama lillazina ana lan mooy mbiri gaa ya nga xam ne kafaroo weddi nañ muutiina mbir mu ñuy way buqi seen bët ya na mbir mu ñuy def ay kuréel ani yemini ci wàllu ndeyjoor wa ani shimaali ak càmmooy xibalaka mbir mu ñuy jàkkaarloog yow lu ko waral ayat moo ndax dafa xemeem ku lim riin képp asi ca minum ca ñoom an yu duqala ba tàbbaleef ko gënata naimi aljanay xiw kàlla mbir mi demee wut noonu de innaa naka ñun yàlla xalaq naahum bind nañ leen wa mimmaa mimmaa ya'lamuuna ca lañ xam de toqantal mënuñu ci laa leen bind falaa uqsimu danaa gëñ bi rabbil ci yàlla may borom fenkuwaay wal maxaaribi ak yàlla mi borom soxuwaay yi ne innaa naka ñun yàlla la qaadiruuna way xattan lañ xalaa an ñu baddi la ñu watee xayra ñu gën minum ca ñoom wa ma nax nu déet ñun bi mas boo xii na ngi nekk ñuñ mën a raw mënu leen ñoo raw de fatharuhum bàyyi leen rek yaxuudoo ñuy xuus wa yalaboo ñuy fo xataa yu laaqoo ba ngi daje yow mu seen bis ba la si ba nga xam ne wa aduna def na dëxal leen ko kañ la mun a yow ma yaxrujuna na ba nga xam ne dañu génn minal ajdaasi bàyyi ko ci bàmmeel yi siraan mbir mu ñuy way gaaw ka annahum daanaka ñoom yuufiduuna dañuy bëbbu ilaa nusubin jëm ci xiram xaashiatan mbir mu aji abu absaarum seen gis ya wa tarhaquhum mbir moomu dana yéeg leen zilatun toroxtaane daalika yawm boobale bis alasi mooy ba nga xam ne kaanoo nekkoon nañ yuuaduuna di lëf ko de mooy bis penc de bis la boo xam ne xéeféer yëpp ay torox buqi seen bët yi toroxtaane dal ci seen kaw ñi rungu leen jëmee leen safara ñi dox lu ëpp téeméeri kilomètre coono ba rek doy na coono dox ba door a hegg safara waa aljaana moom dañ leen di jege dañuy dox ñaari meetar rek ñu ubbi aljaana fekk ñu ko ñu ngi ko ubbiaale sax fu mu ne ni air ba safara moom ñu ngi ko tëjaale benn air dugut da ngay ñëw rek ñu ubbi rek ba max rek daal di leen tëjaat ko nag ni kàccit ñëpp dugg ca biir kon aaya ji jeex na saar wi li ci tegu mooy suratul noox yàlla nga ko wàccee ci yonantu bu ñuy tuddee noox da nga ci jàngale xisaam mooy premier yonantu bu yàlla yoonal noox mooy premier yonantu bokk ci ulul azmi noox mooy yonantu boo xam ne mooy premier yonantu bu ñu alak aw xeetam xeet yëpp maanaam moom lañ ci njëkk a aw xeetam noox mooy nitam ñi nga xam ne ñoo ñu njëkk a samp xërëm di ko jaamu ci wuddu ak yaxuusa ak yaxuuqa mu jege waa Makka piraag leen jël xërëm yooyu andi ko Makka di ko jaabu waaye ñoom ñoo njëkk def loola. noox mi ku gudd fan la ba ko yàlla yónnee ñenn ngeen ne ñeent fukki at la ñeen ñenn ngeen ne juróom ñetti téeméeri at la am ak juróom fukk waaye lu ci mën a am yonentoom ga rek junne at la diire junne waaye juróom junne at ya juróomi téeméer yu mujjee rek juróom fukk yu mujje rek moo neex yi ci des yëpp juróom ñeent téeméer ak juróom fukk yëpp dafa naqari fa labitha fihim alfa sanatin illa xamsina aman noox mii nag ku guddoon fan la ku sonn ci nitam ñi la daa nga gis ku toppoon noox du ko gëm mu jiital doom ja andi ko ba ci moom ne ko moytul ma góor gi maa ngi dund maa ngi dee bul dem ca moom diireb li mu nekk ci nitam ña junne at yu manqué juróom fukk juróom ñetti fukki nit rek ñoo ko gëm juróom ñetti fukki fukki nit benn benn am ba ci la bokk ñaari soxna la xamoon kenn ka gëm kenn ka gëmut ñetti doom bi ca lañ bokk ka kanaan bokkut saam moo bokk ak xaam ak yaafis ñi ci des ñëpp bokkuñu ñooñ ñoo bokk ak seen jabar ya kanaan mun bokkut ak jabaram ja moo ne woon sa awi ila jabalin yaasimu nii minal maa i ba mujj alkona su ko defee nag noox moomu ni mu sonnee ca nitam ña daanañ ko jël di ko dóor ba dóor ya métti bu demee ba ximmali ko rek ñëwaat ne yàlla ma yónni ñu dóoraat mu jigi mu ñaan yàlla ne ko dimbale ma ñuy dégg sama kàddu te buñ gis sama jëmm yàlla defal ko loola taxuñ ñi gëm mu xooleen par kenn kenn gëmuñ mu xooleen ci mbooloo gëmuñ mu xooleen bëccëg gëmuñ mu xooleen guddi gëmuñu mu fi mu nëbbu woote ba gëmuñu ci fesal ko gëmuñu façon état bi ñuy mën a jaaree yëpp ci ay maratib jaar na ca taxut kenn gëm ko ci leen nag ne yow yàlla daal ñeexuma ci ñoom yaakaar waxatuma ñoom sax mais la ñuy jur saxuma ci yaakaar kon dama bëgg nga alag leen yàlla ne ko sa nit ñi ci ci ndox laa leen ni alagee yettal gaal ca la yett gaal ga nag gaal ga mel nam war a mel ñetti étage njanaaw yi bàyyi ma yi nit ñi gaa yi ne dof na nag njanaaw maanaam gaal ak jéeri mu ne in tasxaru minna fa inna nasxaru minkum kama tasxaruna ba gaal ga paree nag mu suuf suuf si ngeen ci suuf gaal ga départ nag njëkk loola sax dañ faa fekkoon gaal ga di ca cabinet lu ne njëkk ñu koy def moo tax mujj gi ci la ci la jël xaj mooy ki njëkk a yar ab xaj jël xaj bi mu koy gardeel maanaam gaal ga ku bëgg a ñëw ci di def lu bon rek xaj ba baw moom mu génn ak nitam ña gaay a daw moo tax xaj charia ba ñu ko su fekkee ci ñetti ay lay la xaj bu lay rëbbali nga lekk xaj boo xamee ne timit Euh, dafa dafa lay wattul sa mbay mi euh, kooku dara nekkut ci wala xaj boo xam ne dafa lay gardeel waaye xaj boo xam ne nag bëgg a jàng bëgg tubaab tubaab rek nag loo ko lislaam moom bañ na ko te léegi-léegi ñi fere ci seen xaj yi loo xam ne mënuñ ko ci nit ñi pikiir bay xaj bay pikiiroo la muy lekk ci yàpp fa muy tëdd am na nit ñoo xam ne boo leen ko joxoon ñu ne alhamdulilah dooy na sëkk kon yooyu yëpp <laughs> ñu jar ci bàyyi xel moo tax yàlla ne inaa naka ñun yàlla arsal naa yónni nañ nooxan noox ilaa qawmihi jëmee ko ca nitam ña su ko defee ba mu ñëwee mu ne an eey yàlla sama borom ne ko an eey anfir na nga waar ko sa nit ña min qabli an yaati yowum njëkk di leen dikkal azaabun mbugal alimun may borom ak métital qaala mu ne yaa qawmi hee yéen sama nit ñi inni naka man nazirun aji waare laa mu binun kay aji biral ak waare lakum ñaal leen li ma leen di wax mooy an eey doo na ngeen wéetal laaha yàlla wattaquuhu na ngeen ragal yàlla wa atii'uuni na ngeen ma topp ci li ma leen di digal su ko defee yaxfir dana jéggal lakum ñeexal leen min zunuubikum seen bakkaar yi wa yu axirkum dana yéexe leen ilaa ajalin jëm ba diir musamman ba de buñ tuddu inna ajala laay naka diirab yàlla ba isaa jaa bu dikkee laa yu axiru deefut yéexe ko ah, law kuntum ne ne ko taxal moon di xam loola kon topp leen ma xaala mu ne rabbi yow sama borom inni naka man daawtuhoo naa qawmi sama nit ña laylan ci guddi wa nahaaran ak bëcëg waaye falam yazidhum dollihut leen duaa sama hoo gi ma leen i hoo jëmee leen ci yow illa firaaran lu ak foñ wa inni naka man ku la ma daawtuhum saa yu ma leen hooyee li tax fira ngir na nga jéggal lahum ñeexal leen jaxaloo ñi def asaabiahum seen poli baaraam ya fii azaanihim seen biir nopp ya wastax saw ñi xaabaabal ci muuroo siyaabahum seen yëre ya bëgguñ sax ma gis leen wa asaroo nuur nañ wastakbaroo rëylu nañ istikbaaran ak rëylu su ma inni topp naka man daawtuhum xoo naa leen jihaaran cig biral su ma inni topp naka man aalantu feeñal naa lahum ñeel leen ñu ngi may gis gannaaw bi nga xamee ne wa asratu nëbbu naa lahum ñeel israaran ak nëbbu fa qultu wax naa ne istaxfiru rabbukum lii lépp wax naa ko waaye taxul mu jariñ kon gis nga noox état bi ñuy xootee def na ko kon déggee nañ ci ne nit ki bu gëmee yàlla di jokk bokk di saraxee wéetal yàlla yàlla guddal fanam moo tax mu ne yaxfir lakum min zunubikum wa yuaxirkum ila ajalin musamman nit ku ne ñaari diir nga am diir boo xamee ne nii boo defee lu baax rek jokk say bokk di saraxee yàlla yokkal la ko ca diiru ñaareel ba su fekkee da nekk di dagg bokk di wax lu bon wax lu yàq yàlla xëcc diir bi mu fekk bële rek nga waroon dund juróom fukki at ci kaw suuf mu wàññi ko def ko fanweeri at nga dem ci biir suuf dund ñaar fukki la ca des kon wa yuaxirkum ilaa ajalin musamman kon dund dana yokk mais dund tamit dana wàññeeku alquran waxna ko ci ayaat yu bari su ko defee kon kooku moo yonentu yàlla noox loolu tamit la yàlla wax ci moom xoo na leen ba sonn waaye taxut maanaam ñi gëm ko mu mujj nag léegi euh, di yëgal yàlla loo xam ne yàlla yëgoon na ko te mooy ne léegi jéggalu leen yàlla su ngeen jéggaloo yàlla rek yàlla tawal leen ay xéewal ci wërsëg yoo xam ne dootul jeexati xam nga nit ak ma dañoo saay-saayoon dañoo mujj buñ gisee noox sax muuru sangu xam nga kuy def lu bon du bëgg a gis kuy def lu baax ku dëng du bëgg a gis ku jub dañ daan gis mujj muuru moo tax mu ne sax wastaxsaw xiyaabahum ñu mujj muuru su noox di waaraate lu waaraate wa neex ngi jël seen poli baaraam ya dugal ko seen biir nopp yi kooku mooy pare wuñ pour déglu la euh, jaaloo asaabiahum majaas la xam nga ne baaraam xajul ci nopp waaye ngay wax poli baaraam ya poli yi moo ci xaj waaye baaraam bi yëpp koy xajul ci nopp moo tax ngi jël seen poli baaraam ya dugal ko ci seen biir nopp ya ne ko ñun pare wuñ ngir déglu la mu ne kon dóor nañ ma ma ne yow yàlla nëbbu ma buñ ma gisati ma def noona jariñut feeñalaat ma ma feeñ ci seen kanam jëriñut kon nag léegi li ci des nag mooy fi muy war a ne nañu ñaan jëm ca ñoom nag lu nga tegu fa qultu staxfiru ah moo tax mu ne fa qultu ma ne istaxfiru na ngeen jéggalu rabbukum seen borom innahu naka moom seen borom kaana naka jekk xafaaran jéggale ha kon la su ngeen ko jéggaloo yursilu danay hebal sama asamaan aleykum ci yéen mu sotti taw boo xam ne midraaran waame ha kon lay doon woo yum dit ko dana mu tëbbu leen bi am waalin ci alal wa bañ na ak doom waaye jaxal dana def làkkum ñeel jinaatin ay tool waaye jaxal dana def làkkum ñeel arhaarar ay dex maa lakum xanaa aya leen dal laa tarjuna du ngeen yaakaar li lay ñeleel waqaaran ak wekk waqad ta tambir moom bind na leen attawaaran ci ay jamono toqantal mëniyu lumbu nekk suux nekk la ngeen nekk alam taraw xanaa gis loon kay fa ka naka la bindee laaw yàlla saba samaawaati juróom-ñaari asamaan mu def leen ñu nekk ay déele tibaaxan ci ay déele wa jaala def na xamara weer wi fiihi na seen biir nuuran muy leer wa jaal def na samsa jant ba siraajan muy kàndiya moo sos seen maam Adama minal ardi ci suuf nabaatan ak sos su ma yu'idukum topp mu delloo leen fiihaa ci suuf su ma yuxriju topp mu génn leen min maanaam ci suuf tamit ixraajan ak génnee mooy minhaa xalaqnaakum rek wa fiihaa nu'idukum wa minhaa nuxrijukum taaratan uxraa wallaahu yàlla jaal def na lakum arda suuf bisaatan muy luñ lal bu la neexee dox bu la neexee taxaw li ko ngir ngeen sóobu fiya minhaa ca suuf subulan ay yoon fi jaajan yu yaatu lii la yàlla nooxu wax ci tam ña waaye taxut ñu jariñ ndax nitam ña dañoo xamoon ay kilifa yoo xam ne ñooy kilifaay njaboot ga ñoom lañ gëmoon ñooy seen ruasaawu ya ñoo daan xirtal nit ñi ci jaamu xiram ne leen lu mu métti métti métti métti bu leen topp paa bi bu ngeen ko toppee da ngeen sànku ñoom nag ñu ne leen bu leen bàyyi seen xiram yi jaamu leen ko bu leen fi bàyyi suwaa bu leen fi bàyyi wudd bu leen fi bàyyi yaxuuqa bu leen fi bàyyi maanaam tamit yaxuusa ñu nekk ca loola nag ba yonent yàlla noo xam na ne nag eh, innahu lan yumina min ka ila man qad amana xam na loola nag ci la mujj nag ñaan nag ne rabbi laa tadar alal ardi min al kaafirina dayaaran fekk jot na nag foofu nag la yàlla ne a defaral gaal gi nag asamaan si di sotti ndox suuf si di sotti ndox yonent bi nee na ndox mu mos a wàcce dañ koy peese ba mooy ndoxam yonentu yàlla noox ma dafa sottee ku rek xaabaabal ci seen kaw ñu mujj nag ñoom ñëpp nag mujj alku yàlla musal juróom-ñett fukki nit nga nekkoon ca gaal ga kon képp koo xam ne yaa ngi mooy yàlla mooy yàlla amul mucc lu mu neex neex ci sa bakkan boo liggéey li lay xaar bu ñëwee wallaahi da nga réccu lu taxoon ngay mooy moo tax mu ne kaala wax na nooxul noox ne rabbi yow sama borom innahum naka ñoom sama nit ña asaw nii mooy nañ ma wa tabaxu topp nañ man njiit yoo xam ne lam yasidhu dolliwut ko maalahu ala lam ja wa waladuhu ak doomam ya illaa xasaaran lu dul maanaam ak sànkute wa makaroo fexeel nañ ñoom njiit ya makaran ak pexe ku baaran gu mag wa qaaloo ñoom njiit ya wax nañ ña ñu jiite ne leen laa tasarunna bu leen bàyyi mukk alihatakum seen yàlla di toppu paa bi wala tasarunna bu leen bàyyi maanaam wuddan wuddu ci seen xërëm ya la wala yaxuqa du caa kenn yaxuqa wala yaxuusa du caa kenn yaxuusa wa yaxuqa yaxuqa wa nasaran ak nasaru yii yëpp bu leen ci bàyyi kenn na ngeen leen topp yàlla yàlla nag noox di wax ne waqad addaloo seen njiit ya de sànq nañ kasiran ñu bëri wala tasidi bul doole yow yàlla zaalimina xéeféer yi illaa dalalul ak sànkute mimma xati aatihim ngir seen mooy yàlla gu jéggi dayo ga uxriqoo la la ba leef leen fa uddi xiloo tàbba leef leen naaran safara falam ya jidoo amuñ lahum ñaa leen min dooni laay ku dul yàlla ansaara ñu leen di dimbale ñoom ñëpp mu gën añ alku wa qaala wax na nooxul noox ne rabbi yow sama borom laa tasara bul bàyyi minal kaafirin ci xéeféri dayaaran kenn na ñëpp dee innaka naka yow intasarhum boo leen bàyyee yu dillu danañu sànq ibaadaka sa jaam yi doo du ñu jur illa faajira du ab kàccoor kaffaaran kay weddi xakkoon yàlla xaw ma ki ñoom yaakaar xaw ma ki sax lu ñuy jur yaakaar ma ngay ñaanal nag ña ko gëm ne rabbi yow sama borom ixfir yàlla nga jéggal lii ñeexal ma wali waalday ñeel sama ñaari waajur wali man daqala ñeel képp koo xam ne dugg na bayti sama jàkka ji muminan mbir muy aji gëm yàlla walil mu'minin ak way gëm ñu góor ñi walil mu'minin ak way gëm ñu jigéen ña wala tasidi bul dolli zalimin ak way tooñña illa tabarru alkane na ñëpp waxal ko jeexal naa ci ñoom kon naagu na ca ñoom nee na awma ci ñoom yaakaar awma sax ñi ñuy jur yaakaar yow yàlla na ñëpp dee bu fi kenn des si la nag yàlla ji commencé taw ndox ma commencé ball ñoom ñëpp ñi lab dee nañ yàlla ne na safara lañ jëm ña ca mucc rek mooy ña duggoon ca gaal ga di juróom-ñetti fukki nit kon dañuy wax ne yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama moo hëpp yaakaar yonentu yàlla noox keroog ba mu demee naxlatu demoon taayif kon ànd ak Sayd ibnu Xaarisata ñi boole kook fekk fa ñetti kilifa yoo xam ne duñ dara Abdou Yaali lin Masoud ak Habib ñu jël xiirtal xale yuñ yarul ña ak jigéen ñu xamul kilifa ña ak mag ñu jëmul fenn ña ñu koy sànni ay xeer di ko booleeg ay xaj ba sa ba xaañ tànkam ba ba nàccal tànkam ba jibril ñëw ne ko sa borom nee na boo ne waaw rek ma këpp ñaari doji muy lax sa bay nii ñi alko ay mu ne yow yàlla jéggal leen waaye dañ maa xamul rek cheikh al islam dafa daan wax ne jéggal na leen jéggalul leen layal leen ne allahuma ixfir lahum fa innahum laa mu na yow yàlla dañ maa xamul rek moo tax maanaam ñi may teg lii ñoom ñi même buñ ma gëmut yow man ngaa génnee ki seen ndigg yi ñoo xam ne danañ gëm yàlla waaye gis nga kii moom ña jur ña ña judd sax amu ci ñoom yaakaar yonent bi nag moom xam na yaakaar ba xam yaakaar gi ñu juddoogut su ko defee kon yonent bi ëpp yaakaar ñëpp su ko defee nag yàlla def na loola tamit taayif tey capitalul islam la ña fa nekkoon ñañ màññoon ñañ ñañ meññoon ñëpp tey gëm nañ yàlla moo tax kon law la nabiyu rasulullahi moo bi lax sa bay ni walakin man na min karami loolu la maam alaaji Maalik wax ca xilaas ba tabaarakallaahu saar woowa jeex na lu ki tegu nag mooy suuratu suuratul jinni lii mooy saaru maanaam jinne yi yàlla ni muy tuddee saaram yi dafa la yéem am na ci saaram yi saar yoo xam ne turu ay kilifa la leen tuddee kon ndeke jël kilifa yoo xam ne def nañ jeexital ci lislaam nga tuddal leen maanaam ay boulevard ak i ak tuddal leen ay ay université ak ay hôpitaux loola lislaam a ko njëkk a def moo tax mu tuddee ko mel ni naa sayyidatuna Maryama bàyyiwul sax jigéen tuddee yonentu yàlla Huut ñu mel noona tuddee maanaam ala imran njaboot gu baax googa mu tuddee leen ni saar kon tey li tubaab yi jël jël seen maam ya leen tuddee seeni i bulwaar yooya ñun tamit nañu xam fulla suñ ñu baax ñu fi nekkoon lu ne ñu def ko ci lislaam ñu tuddee leen ay université tuddee leen ay hôpitaux tuddee leen lu mel noona yàlla ku njëkk a def mu jël ay saar lañ leen tuddee ñun ñoo koy yëg muy leer xam nga am na ci saari suratu nuur saaru leer mu am ci saar yoo xam ne euh, maanaam da koo tuddee maanaam xad maanaam lu ñu tuddee jamaat lu amul roox lu mel ne suratul xadiid xam nga saaru weñ gu ñuul yaa ngi koy gis ci alquran am na ci yoo xam ne tamit da koo tuddee maanaam nabaat lu am gàncax lu mel ni maanaam wa tiini wa zaytuuni yooyu yëpp yaa ngi ko ciy gis tey nag dafa tuddee saar loo xam ne monde boo xam ne ñoom la ñuy dund ak ñun nekkuñu benn ñun ñu leen a gis mooy jinne yi yàlla sant ko fàttewut maanaam jinne yi tuddee na leen saar tuddee nañ ko jinne ndax daf ñoo nëbbu nëbbu gi ñu nëbbu nit ñi moo tax ñu tuddee leen jinne yi nag na ñëpp gisuñu leen xam ne ñu yàlla jagleel ña nga gis jinne ya waaye ñun bokkuñ ci ñu leen gis nag moo tax kon nag ñoom euh, nëbbu nañ ñu daal gisuñu leen ñoom jinne yooyu la yàlla tuddee saar wi saar wi nag dafa wàcc rek am sababu nusool sababu sol bi mooy ñaari yoon ba ñett yoon la yonantu bi gisee ginne yi am na ci boo xam ne bi mu bàyyee ko taayif di ñëw ànd ak Sayd ibnu Xaarisata ba yegg si nax la tu la yàlla yebal juróom-ñaari kuyal jinne ñu fekk ko foofa jaayanteeg moom ba ñuy ñëw mbubbam nit lañ soloon dañoo foogoon ne sax jinne lañ moom dafa foogoon ne sax maanaam ay nit lañ waaye gannaaw si gi nag wa is saraf naa ilayka nafara minal jinni wàccee ci la door a xam ne nekk kat gaa yi ñëwoon fekk ak man tuub foofa ca nax la tudd wuñ ay eh, nit waaye ay jinne lañ am na ci boo xam ne nag muy bii nekk ci boppu saar wi yonentu bee toog rek oo oh, ku ne damaa bëgg a dem yàlla yónni na ma ci jinne yi kuy ànd ak man saxaaba yi ne mekk jinne kenn ñemewut ko mu ne yàlla yónni na ma ci jinne kuy ànd ak man ñëpp ne mekk ba mu ñetti yoon ibnu Mas'ud ne ko pare naa pour ànd ak yow mu ne ko nañ dem mu ànd ak bi ñu dem ba ci palaas yonent bi rëdd aw rëdd ne ko bul génn rëdd wii toogal fii xaar ma yonent bi départ mu koy séen sim tuuti mu gis am am ñuy wàcc mu ne man ba ma leen gisee ay góor yu dëkk pers laa leen tegoon dañoo mel ni góor ñu dëkk pers ñu koy wër di ko wër di ko wër ba gisatuma yonontu bi man mii demoon naa bay bëgg a génn rëdd wa dem di ko seeti ma toog ab diir yonent bi daal di ñëw ba mu ñëwee ne ma bëggoon ngaa génn rëdd wi ñëw fekk si ma ma mu ne mu ne ko mu waaw tuutee tere ma génn rëdd wi mu ne ko maa ngi lay waatal ne boo gënoon rëdd bi xalaaqiraa la ñuy gisee mais du nekk ci àdduna bi ndax sa kilifa fu mu lay xem la boo boo xem fa mun ko yemal fii foofa nag mooy beneen jinne yi jinne yooya nag fekk yonentu baa ngi julli julleeg fajar suba jàng alquran rek ñoom ñu daanu xéemu dem na commencé waar seen nit ñi nag ci alquran ji nga xam ne dégg nañ ko kon ndeke yàllaa ngi xas waa Màkka ak yéeféer yi ne alquran ji yéen bu leen xéemut sax xéem na xéeféeri màkka yi ngir xéemu gi mu xéemu xéemu bu leen xéemut yéen xéeféeri yi xéem na jinne yi waa damay wax ne ku ji ku jommi ñu ne xanaa waa gi dafa def jinne fu ni ku jommi rek lu gaa yi wax xanaa dafa gis jinne waaw kon jinne moom ma bu déggee lu ko jommal loola mën naa jommalaate de loolu mooy alquran ku jommi ñu ne dafa gis jinne kon jinne moom bu jommee nag la ko jommal mën naa jommale de la jommal jinne nag mooy alxuraan kon alquran nañ ci góorgóorlu xamul morom de moom lay wax moo tax yàlla wax yonentu bi ne ko qul waxal ne uuxiya wax yoof na ma uuxiya wax yoof na ilay jëm ci man ne annahoo naka lay mbir tey mbir istamaa sàkku na déglu nafarun kuréel minal jinni ci jinne yi fa qaaloo wax nañ ne innaa naka ñun sami'naa dégg nañ quraanan alquran ajiban bu héemu maanaam ajiban ajaban maanaam ajiban yahdi alquran jooju dana gindi ila rusdi jëmee ki jub jëmee ama naa ñun de gëm nañ bii ci alquran wala nusrika duñ bokkaale ti mukk bi rabbina suñ borom ahadan kenn wa annahu naka lay mbir tey mbir taala kawe na jaddu rabbi naa rëb suñ borom loolaa tax mattaxasa jàpput saahibatan soxna wala wal dantu caa kenn doom wa annahu naka lay mbir tey mbir kaana nekkoon na yaqulu daan wax safiihunaa ki ki aji dese suñu ta mooy iblis xalalaay waral yàlla satatan wax ju jéggi dayo joo xam ne dara du ca dëgg moo waxoon ne yàlla am na soxna ndeke day kàcci wa an naa naka ñun xanan naa njortoxoon nañ ne an naka lay mbir tey mbir lan taqula du waxal mukk al insu xëytu nit wala jinne ginne xalalaay waral yàlla kasiban fen foogoon nañ ne yàlla nit ñi mut koo fenal jinne sax ñi mut koo fenal wa annahu naka lay mbir tey mbir yonentu wa annahu naka moom yàlla kaana nekk na rijaalun maanaam ay góor minal insi ci xeetu nit ñi yausuna di muslu bi rijaalin ci góor minal jinni ci jinne yi fa fasaaduhum loolu de dool na jinne ya maanaam rëhaqan ak bew wa annahum naka ñoom zannoo njortoxoon na ñoom jinne ya kama xanantum comme ni ngeen njortoo yéen yéen xéeféer yi ne an naka lay mbir tey mbir lan yabasa du dekki laahu yàlla ahadan kenn lii ngeen gëm moom la jinne yi gëmoon kon ndeke bu nit nekkee ci sa gannaaw boo bëggee noppalu xee ko rek ñii iblis moo leen xeewoon waaye keroog ba leen yonent bi xeeyee lañ xeewee ku bàyyi fa iblis iblis moo leen waxoon ne yàlla am na soxna am na doom keroog ba yonent bi jàngee alquran ñi dégg ko mu wan leen wéetal ak yàlla ñu tubanteeg moom lañ mujj joxoñ baaraam bu ñaaw jëmee ko ca iblis mi leen sànkoon xam na koo xam ne da ko koo koo xeew di ko lëndëmal rek bés bu xewee koo rek yaay nekk première noonam su ko defee nag ñu ne ñun de foogoon nañ ne yàlla kenn du ko fenal nit ñeme koo fenal jinne sax mut koo fenal waaye dëkk iblis mu kàccoor mi mi ngi fenal yàlla ñun de euh, bu ko defee nag aaya gi ci teg wa annahu kaana rijaalun bu njëkk ba xéeféeri dañoo ragaloon jinne yi ba ku ci daan tukki bu duggee ci aw xuur dafay wax ne maa ngi musloo yàlla kuyal jinne li nekk fii lépp lu fiy musiba yàlla na ma kuyal jinne li maanaam musal moom lañ doon musloo loolu nag yokk bew jinne ñu ne ñun kan nit ñi ñoo leen xilif xam nga loolu baaxul waaye kuy war a muslu ngaa war a muslu ci yàlla rek waaye buñ musloo ci am mbindeef léegi nag jinne yi njëkk yàlla di yoon yónne yonentu yàlla Isaa dañ daan yéeg bu benn taxawee beneen taxaw ci kawam bañ yegg ñeenteelu asamaan keroog ba yàlla yoon yónnee Isaa rek mu tere leen ba mën nañu ñoo paase mënuñoo demati paase ñeenteelu asamaan yonentu bi nag dafa judd dara xewut judd rek def première asamaan tuñ ko laalati mu dem a dem ba ñu yónni ko ñu gën a renforcer gardien yi képp ku bëgg a traverser asamaan pour sàcc ak déglu rek malaaka yi ñooy xëcc misil ci biddiw yi rek dafa am ay misil yu nekk ci biddiw yi du tere biddiw ba nekk fa xëcc ko rek sànni la ko bu la dalee ca saasa moyut la dangay ngay da ngay da ngay da ngay da ngay maanaam far mel ni wëñ goo jël dugal ko ci safara su la kosee nag da ngay paralysé mu yóbbu sa genn wàll cër yooyu mooy kondorong yi sàmm maanaam nagi jinne yi ci àll bi kon du mooy mukk nag ñoom nag ku bëgg dem traverse yi rek gis misil yay dal ñi dem ca Iblis wax ko ko mooy seen kilifa mu ne tasaaroo leen ci àdduna bi ngeen laaj lii lu ko waral lañ dem nag ñenn dem ñooy wër ko côté Màkka fekk yonent bi di julli juleeg fajar di jàngal Alquran lañ dem nag ne ko Iblis li waral mbir mi gis nañ ko fekk nañ waa joo xam ne kàddu ya muy jàng nit du waxi jinne lii moo waral loola nag ñoom nag ñu naan waaye ñun de xamuñ lii xanaa yàlla dafa namal waa suuf aw yiw wala ay la leen namal ñun de xamuñ li xew moom lay wax si nii moo tax mu ne wa annaa naka ñun lamas naa doon nañ sàkkoo laal asa asamaan fa wajan naa fekk nañ ko mu li at di feesaleef ko xarasan ci garde ay garde ñe sadidan am doole wa suhuban ak ay juum te wa innaa naka ñun wa annaa naka ñun ku naan nekkoon nañ naqudu daan jékki min ha ci asamaan maqaayida ay jékkiwaay li sabi ngir sàcc déglu waaye fa man yastame képp ku sa na ma sàkki déglu al aana léegi yëjji dana fekk la hoo ñeel ko shihaaban jum rasadan yu koy fuglu de wa na naka ñun laa nadri xamuñu asharu ndax ay urida la na maleef man fil ardi ñu nekk ci juróom ñi ci suuf am man wala ñu wala am araad ndax dafa namu bihim ca ñoom rabbum seen ba rasadan jub xamuñ li xew de waaye li wér tëxër wa annaa naka ñun gannaaw bañ déglee alquran min naa am na ki ñun saalihuuna ñu baax wa min am na ki ñun duuna saalika ñu xees ñu baax nekk ñu bon ñun daal ku naa mujj nañ taraayqa di ay kuréel dan yu fasantikoo wa an naa naka ñun sa nan naa njortu woon nañ ne an naka lay mbir tey mbir lan nox gisa mënuñu rëcc laaxa yàlla fil ardi gi suuf wala nox gisoo mënuñ koo rëcci hërëban mbir mu ñuy way daw wa an naa naka ñun tamit maanaam ah, lama samay naa ba ñu déggee alhuda alquran aman naa gëm nañ bii ca moom dégg de fa man yomin képp ku gëm maanaam bi rabbi ci boromam falaa yaxaafu du ragal baxsan wàññeeku lu rafetam wala raxaqan du caakeen dolleeku lu ñaawam de wa annaa naka ñun gannaaw bañ dégloo alquran min naa am na ki ñun muslimu na ñoo xam ne dañoo jébbalu wa min naa am na ki ñun xaasitu na ñoo xam ne dañoo jéng de waaye fa man képp koo xam ne aslama jébbalu na fa ulaayka yooye gaay taxaraw nattale nañ rasulan ak njub wa amal na daal ñu jeng ña fa kaanoo mujj nañ xa xattaban di matt li jahannama ñeel safara lii kon moom lañ waxal seen bopp jinne yaa ngoog gannaaw bañ dégloo alquran yonentu bi jàngal leen ko am na ki ñu baax lool di ay jullit di pratiquer seen ak njullit ga am na ki ñoom ay waliyu yàlla yoo xamee ne tey yee nga ñoo xilif seen i jamono duñ bu ko defee tamit kuréeli tariqa yi nga gis tamit yu bëri seeni taalibe yi ña nga nekk ca jinde ya ni ngeen di yi noonu la ñuy pratiquer seeni tariqa ñoom tamit di ko di ko appliquer xam na ke ñoom ñu baax lool am na ke ñoom ñu bon lool su ko defee tamit waaye nag am na ki ñoom bañ dégloo alquran ñu nekk ay jullit am ñu nekk ay xéeféer ñu ne ñun xam nañ ne xéeféer yi safara lañ jëm jullit ñee nag ñoom seen lu baax kenn du ko wàññi seen lu bon kenn du ko yokk baxsan wala raxaqan léegi yàlla nag tofal ci lii li ñu wax yu bi lii ci la bokk moom lay wax ci nii ne wa an la wistaqaamoo wax yu nañ ma ne bu ñu juboon ñoo nit ak jinne xaala tariqati ci yoonu lislaam la asqaynaahum danañu nàndal leen ma an ndox xadaqan mu bari mu ne su fekkoon na ñun ñëpp bokk nañ di pratiquer lislaam dootu ñàkkati dara yàlla dana sotti ndox mi mu waame te Omar dafa daan wax ne wa haythu yujadul maa'u yujadul maalu wa haythu yujadul maalu tujadul fitnatu xomar nee na fu ndox am alal du fa jeex waaye fu alal am fitna du fa jeex kenn mënu ki dara rayante gi ngay dégg yëpp alal fa nekk rek fu alal nekkul ñoo ngi jàmm la ñuy ne kon fu alal xas nekk fitna dootu fa jógati kon lu luñ say déggee képp ku bëgg a développer am réew dangay fexe ba ndox ma bari rek xëccal ndox ma mu dem ca àll ba nit ñooy bay noor di bay nawet suñ ko defee rek réew ma naat loolu moo gën a gaaw ci naatal réew waaye su fekkee ne nit ñi dañuy bay noor dañuy bay nawet rek tëdd nelaw di nelaw noor te bëgg a lekk nawet ak noor man ta sotti di su fekkoon ne kay dañuy bay nawet nañ nañ lekk nawet rek bu noor jotee bu ñu lekkati waaye comme dañuy lekk nawet ak noor nañuy bay noor ak nawet rek bu loolu bëri woon rek ci wàllu fur wi ci wàllu ceeb beeg yeneen ya ci aju lépp réew mi développé kon kenn mënta développer am réew te fexe woo ba yoon ya am fexe woo ba ndox ma am fexe woo ba faju am fexe woo ba njàng ma tamit tegu ci yoon moo tax alquran ne wa an la istaqaamu ala tariqati la asqaynaahum ma an gadaqan su ma ko defee nag yàlla ne na li naftinahum ngir nañu nattu leen fii ci xéewal googu sababoo ci ndox waaye wa man yurid képp ku dëddu an zikri rabbihi walis alqurani boromam ji yasluhu dana sóob ko azaban mbugal saadan mu tiis képp koo xamee ne gannaaw ba naataange ñëwee bàyyi nga fi yoonu yàlla wi topp sa bakkan mbugal mu rëy rëy mi ngi lay xaar ma ngi cay teg nag jàkka yi jàkka yi tamit war naa wax de rawatina suñ jàkka yi jamono yi dafa mel ni tey ku feebaroon danga daan dem ca jàkka yee faju ji waaye tey nag jàkka yaa gën a feebar dugal nañ ca lu bari lu ca bokk def jàkka yi ay centre commercial rek di ko dundee nas ay mbuus yu dul jeex ñëw leen ci liggéeyam jàkka ji jàkka ji du mat mukk xanaa ñëw leen ko ci liggéeyam ñuy liggéeyal jàkka ji bokk ñi xaw a sax soppi terme bi su ko defee bilaal baak noddukat yaag yalwaankat ya ña ngay ña ngay ña ngay siisante léegi-léegi waa ji xëy di laaj a laaj dugg ci pantere bu ndaw ba jël kayit yu mag yëpp dugal ci poosam ne sarax si nii la toll du jeex jàkka yi fu mel ni tamit daanaka marché la lu ci gën a bari kenn ku ci nekk yaa ngay wut di liggéey liggéey lu place bu ne kañ ko jox xeewut ko liggéey liggéey ba traité xamoo dara ci diine ñëw ne maay bilaal bi foo ko defee am nga place boo xam ne ku la fa njëkk nga mere ko ilimaan ji lu mu bari bëri xam-xam feeg waxoo ko bisimilah du dem ca kanam su bu taxawee ca kanam tamit feeg waxoo ko bisimilah yi du mën a du du ñeme du ñeme du ñeme maanaam ne li xam leen yëpp def ay commission yu jëmut fenn jàkka ilimaan ji rek moo xamee kàddu ga naayib sax sañ koo fal kenn du tabax jàkka nañ def naayib na ma nekk rek bu ñëwee seet nag ñay julli si borom xam-xam nga ca gën a ragal yàlla fonk jàkk mu ne ko su ma fi newul del jiite kooka tamit nekk su ma fi newul na kii di jiite waaye dañuy koy rek tër tëral tëral benn list boo xam ne jàkka gi noonu lay doxee mu mel ni centre commercial suñu suñu yëglee nag moom fa lay jeexee mel ni marché fa la ñu yëglee fa la ñu jaayee fa la ñu tàggee courrier la fa nga ko koy waxee te yonentu bi daan wax ne ku ngeen dégg muy yëgle lu réer ci jàkk wax leen ne yàlla bu mu feeñ tey nag foo toll yaa ngi dégg loola boo demee ki téere bu ñu tuddee madd xal libnil xaaj moo ko liggéey la muy wax ak suñ jàkka yi da ngay yéemu yow da ngay sax ragal ne ndax man danaa demati jàkka li li li ci nekk ci ay biddaa ak faat yu bëri yéen ca dugal kon yooyu yëpp foog ñu jéem koo sancé jël borom xam-xam ragal yàlla li ñu jore ñu jore jàkka yi ñu xamul nekk ca gannaaw del taxaw ak di liqaam ak loolu du dara lu dul xut liggéey liggéey lu rek pour nga mën a xam noo mën a def ba xam ne kees gi liñ koy séddoo da nga war am loolu lépp daganut ci bàyyi xel kon loolu la yàlla di wax nii yàlla moom suuf lépp mbee jàkka yi rek la askane boppam ne maa ko moom wa anal masajida lillaahi comme maa ko moom nag falaata tad'u ma'a llaahi ahadan bu leen fa jaamu kenn ku dul man bu fa turu kenn di jolli lu dul sama tur bi rek comme maa ko moom naa ci fes waaye léegi dañu jël dara sédd ko yàlla ba pare tuddee ko yàlla ba pare bu ñëwee ñu sédd ca yàlla ndes li moo moo yor ci jotaay yu bari looloo ko moom dañ koy tuddee yonantu bi waaye la ca yonantu bay am lu tuuti lay doon fi parole yi gën a baaxee dañ koy jox ñu duhut ñooñu ñu wax la leen neex ba nit ñooy nelaw nag ñu door a jël gàmmukat ba mu commencé dugg ca maanaam xisaay yonantu ba fekk nit ñaa ngay nelaw bu yàgg kon yooyu yëpp suñ jotaay yi ci bëri loolu yàq na ko jàkka yi tamit ñi waroon caa defar lu ci bëri yàq na ko dugal nañ ca yu kenn xamut kon jàkka yi lay wax si nii moo tax mu ne wa ba tey wax yu na ma ne anal masaajid naka jàkka yi lillaahi aji sax la ñeel yàlla kon fala tadoo bu leen jaamu maa laay ànd yàlla ahadan kenn wa annahu naka lay mbir tay mbir lama qaama ba nga xamee ne taxaw na abdullahi jaamab yàlla bii di sayduna muhammad yadoohu mbir moomu ma ngay jaamu boromam kaadoo xaw na ñoom jinne ya maanaam yakoonoon di nekk libadan ba mel ni séq alayhi wër ko ñu ngi mel ni séqam fas wër ko qul wax leen ne innama addoon daal danaa jaamu rabbi sama borom wala usriku du bokkaale bihi xul wax leen ne inni naka man laa am li ko mënu maa jañ laakum ñeex leen daran lor wala mënu maa bu mënu maa bijji ñeex leen rasadan njub xul wax leen ne inni naka man lan yu jiri ni ana kan moo may xettali mi ne laay ci mbugalam yàlla ahadun kenn walan ajjide fekkatuma min dooni ku dul yàlla multaxaban multaxadan benn wéeruwaay illaa kan dara warum lul jotal mi ne laay gu bàyyi koo ci yàlla wa risalaati ak ay leetaram wa man yaax si képp ku mooy laa yàlla wa rasooloo fa inna lahu aji nekk la ñaal ko naara naar jahannama safaraaw safaraaw jahannama xaalidina mbir mu nekk si nag biir fiihaa ca safar abadan faw lii la yàlla wax kon ku wéetal yàlla aljaanaay sa dëkkuwaay ku bokkaale yàlla dugal ci ay xuraafaat lu ci bokkut safara mooy sa dëkkuwaay yonentu bi la jël mu mel ni ku wax loola mel ni taarit waaye fekk mi ngi wax ak ñun waaye mu jël dami réew yi mu male ko boppam waaye wane ne ku fi jaamuhul yàlla ku la mën a xettali ëllëg kenn nekkut fi nañu góorgóorlu kon ca loola moo tax mu ne xataa isaara aw ba ñu gisee maa la nga xam ne yoo aduna def na dëxal leen ko fa sa mu xal si nañoo xam man a ana kan addaafu moo gën a lompañ naasiran ci aji dimbale wa aqalu moo gën a néew adadan ci lim xul wax leen ne in adari déet may xam a qaribu ndax aji jege si la maa la nga xam ne tuwo aduna def na dëxal leen ko am ya jaxal wala dana def la woo ñeel ko rabbi sama borom dan muy diir bu sori aalimul xay bi moom mi nga xam ne mooy xam li fàddu te falaa yuthiru du feeñal ala xëy bi ci xamam lu fàddoom loola lu mel ni bis penc ahadan kenn ñu ne faw mu ne ah ilaa manil tada lu dul koo xam ne gërëm na ko mi rasulin ci yonantu fa innahu naka moom yasluku dana sóob ko yasluku na dëgëral ko min bayna yadayhi ci kanamam wa min xalfi ak ci gannaawam rasadan lu koy fuglu kenn du ko manal dara li ma ngir na feeñal ak xam ne an naka ñoom yonantu yooya xadd ab la koo gotal nañ risalaati rabbihim seen leetari borom wa ahaata peeg na bi maa la dëhin la nekk fa moom la nekk fa ñoom yoom yonantu ya wa ahsa takk na kulla shay'in lépp la xaddadan ci lim lépp yàlla xam na ko kon mi ngi mel ni saar wi foofu la daanoo saar yi ñu jaar yëpp liñ ci yàq yàlla nañu ko yàlla jéggal li ñu ci xam yàlla nañu yàlla may ñi mën koo jëfee yàlla may ñu timit ñi mën koo fas te yàlla gërëm lépp wàccee barkeeb alquran bi ci ñun ak ci yéen ak ci mboolem jullit ñi xaasal ci boroom kër gi suñu waajur mi ñu may occasion ñi addu ngeen di dégg ñii di seetaan ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi